Ousmane ñëw di sérieux sérieux bi quoi ñu naan ko carré mu naan non ça va benn petit fekk daa ñëw gën a si ba quoi tëdd jot ñu yóbbu ko mu tëdd mu tëdd mu dugg yoon dem ci waañ bi ñu am contact bi rek daana ci bool yi xam nga boole Ousmane la mu ci dugg waañ bi tëdd ñu ne sàcceey mu ne bu leen doon def leen nàmp nit ñi làmp bi rek taal rek foog gi Ousmane tëdd ma ne ko Ousmane def ci waañ bi mu naan ma tëdd rek waaw waaw moom may kenn xamul fu muy teer jàmm ci réew mi suñu ñii la mën a sosoo nekk li nga moom yaa ko mën a sàmmal sa bopp yaay booy ndox muy wal kenn xamul fu muy teer ji waaw waaw li nga dul def sa biir kër waroo ko def ci yaatal xool yaa su ko defee yërmande ak xéwal ku yëngu ku ne moo la tax di yëngu li kay maye ñaar yi la waaw muy leen góor dëgg yàlla rek ko ko mën a dimbali te ndimbale gi yàlla du ànd ak maa taxee waaw waaw

lay fay ku nangul yàlla dogal doo sonn sa xol du jeex ku bañ di yàlla dogal di nga jaaxle kenn du ko faj sa borom du leer jàmm ci réew mi dañu naa ni su ñun ñii lay sosoo ñun ñi ma bëgg yéen ñëpp ma joom yéen ñi may dégloo yokku ngeen ma jom kenn ku la bëgg dafa jara daw ba dee ngir ñi la bañ du na fa ak ñoom ànd yëpp koy neex waaye li ngeeroo wuleen ñaani mbañ yoo jam farib ma wulee gay naa yàggatuma njaay ma njaay mbooni abu dem ba bàyyi ma se wuy leele way bàkk naa la ji naa nañu leen ku man nga waray war ku munu da ngay toog coow li coow la teelay mu jeeg bu tukku yàggee léegi ngoo seeg ba jam yàggee jàmbaar seeg jëm jaala mi si jaaji ma samba nee ne faal ko du jëm mu faal mbéy sama mam. waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi leen ziar bu baax a baax di nuyu ñëpp les téléspectateurs di Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo maa leen di ziar bu baax a baax di bëgg ñëpp du nuy ku nekk turam ak santam te wax ni gars yi ku dugg rek na partagé ku dugg rek na partagé ku dugg rek na partagé may ziar nag sunu sëriñ sëriñ Dame Diouf lama lama bi di ziare ñëpp nag di jiital nag ci nuyoo bi nag Cheikh Diagne Naar di ko timit jaale waa dëgg fa yàlla rakk papam boobu fu jógee bàyyi ko fi ñu koy jaale bu baax a baax a baax diko wax yalla na sax xam yàgg seen dox bu baax ba ak diwan wa Mauritania bi yep di wax ne gars ku dugal ñu partager ba dem jëli ci gars après ñu ajaamare toy sama yaay faal duma tayé di la way ali nay sa baay na nga tuba tuuba tay sa yaay yaa neex a way moom royukaay moom kaay mel ni soogi ku mel ni ismaayla loo waaw royukaay la maa nga mel ni fàllu baay beenoo moom royukaay la ma tàyyee di leen di way yàqoo leen yoon wi ku ko bëggee gannaaw yàlla yi na tax ñuy royukaay ngir yàlla dinaa leen way dinaa leen gàcc dinaa leen ji ngir yéen ñii royukaay nga umaray pem góoru banat doomi yaayu papa njaay ak dimbal waaw waaw yow royukaay nga ñoom ñii jàmbaare royukaay nga waa kudu yi ku dugg kudu na kudu partager ku dugg partager ku mbay mbeeroo gite momoori maamam daaw momoori momoori medun dambeelu commaan mi bakkool dambeel ruyukaay nga waawaaw papa njaay ruyukaay papa njaay gërëm naa la sant naa la idiri xaay sa baay yaa ne xooy njaay jaata ruyukaay la ruyukaay la waawaaw

waa xarit bi yéen njëg xarit Diouf moo ñëwee njëg nga ma ma gis may santaate ko jaxle falo ca gaaw waaw madame jërëjëf gars yi ñëwaat ko jàkki moo ca gaaw ku dugg rek partagé waaw si laa njëkk a forgaloor waaye may njëkk a wax Alen moom mu njëkk a jox mu njëkk a ma woy tamit temps yii waaw muy grand bu dëkk ginnaaw raay boobaak léegi daal war na ma ay. lay commencé mais bëgg naa nekk ci ko ñëpp parce que yàlla lu muy def ci waykat yi def na ko fii nekk guma ci benn groupe man seule personne ma ànd yàlla yeneen tibbi ak Serigne Fallou Mbacke. Papa yu bi may njëkk a jóg di wayi dama tëdd ba guddi ay deux mooy dégg àlla jóob di wayi ay jàng di waye bi ma ñëwee dama fekk mu tas nepp ba ne waaj tekk rajo yi ma nuyu ko ni ko gënaa dama bëgg a wayi mu ne ma mais jàng yi tas na ma ne ko waaw mais dama bëggoon way tuuti quoi mu ne xaar jox ma micro bi ma sikk wala yu tëgg mu ni ma léegi sa guddaaju ma dee ñëw fii muy kër Pape Boy Naar sa guddaaju ma bu jot fi la ñuy nekk ma commencé di ko fréquenté may won yoon bi naan ma nii lañuy ñuy woyee nii ak nii muy gannaaw bu nice allah après ci loolu benn laan demee korité Papa Ngom bi simb baalu mars dimanche ak Sadio Ndiaye ma dem seetaan ci simb sa gaynde yi jàpp ma ma ñëw nii damay woy ne jox ma micro bi ma way ma woyee ba pare ñu woo ma nag ma commencé di ànd ak ñoom di woyal di way ci mbappat ji ak ngëdd yéeg fu ne waaw ba benn jour ma dem seetaan soir sénégalais Papa Ndiaye travaillé su boobu laa njëkk dugg foofu bi may ñëw di dugg ñu ne moo da ngay fay leen man artiste laa damay way ñu ni ma noo xamuñu la ma taxaw ci buntu boîte bi nit romb ma ma way ko mu may ma 1000 keneen romb ma ma way ko mu may ma 500 muy 1500 ma dagg bi dugg bi ma duggee toog ci ginnaaw tëkk sabar yi ñoom Abdou Thiam ak ñoom Mbusu ñooñu di tëggale Papa Ndiaye ma toog seen wet ak Baye Thiaye Baye Thiaye. waaw ndeysaan gars yi ku dugg rek boo bëggee gis kuy moom boo bëggee gis kuy mbalax demal ci moom fekk boobu moom mi ngi studio si laa dem pare dem tëddi ñu yee sama si laa demee bi àjji moom yóbbu ma studio kon ndax ñun bu ñu wéetee ñu xasida yi ak di sikar waaw xalaat naa mu lay defal gone yow xamal ba nga xamme ba nga dee gone yow gisuloo waa soldaar soldaar soldaaru maam maa ngi lay ziar xaadim xaadim di wax gars yi ku dugg rek partagel ma dem jëli ci gars ndànk-ndànk parce que pour live bi neex première partie bi il faut ma jëli ci gars yi par ndànk-ndànk il faut ma jëli ci gars ñu mën waxtaan suñu biir nak vraiment ku dugg rek partager partager partager partager waaw parce que ñoo bokk laay partager len rek après ñu waxtaan وسجامة ويلي boo gisee chaque samedi may toog Pikine bëgg gi ma bëgg Pikine moo tax chaque samedi may jouer ravin mais boîte dañ may woo fu ne continuer mais damaa bañ ravin chaque samedi wóor na yàlla waa Pikine ñoo tax ma koy def mais duñ si gagné dërëm matériel bi maa ngi koy jëlee deux cent mille wala cent cinquante mille chaque soirée préfet musicien parce que man du ma bind man way damay ñëw toog composé jàpp gaam ku may arrangé way doo sonn kooku yàlla moo koy def ci nit parce que yàlla moo ne booy faral di sikkar saxoo si def sa dënd leer boo xam bu nekk ci alxuraan kooku yàllaa ko wax te man damay nit yoo xam damay wér di sikkar fu ma toll su may way way yi amul lu ma ci bind say bii nga dégg yëpp damay ñew tok japp gam compose way nga ñew tok mag sa clavier non lay démé quoi ki 3 jours ko répété ci studio saaw ni nga dégg ni 3 jours la répété waaw ndeysaan gaay may wax tamit ku dugg rek na partagé tey nag macha allah ñu ngi ñew ci tamit ci live en direct bi en émission ndongo ba faw ma ngi jégoon nak si guddee yi parce que à l'instant ni ñi ngi xaw a mais wax tamit gars yi pour live bi neex ko dugg na nga partagé di ñëw nag ci première partie bi vraiment nag di si jaale El Hadj Diagne Naar mi ñàkk waajuram bu góor boobu ñu koy jaale bu baax a baax a baax nga xam ne tamit kooku rakk la ci waajuram bu góor nekk ba Mauritania maa ngi koy jaale bu baax a baax a baax a baax a baax di wax tamit ni gars yi ko dugg na nga partagé à l'instant nag ci première partie bi xam naa bu nee ba si kanam tamit ñu di jeexee mais gars yi tamit kon comme ñu ngi ci online bi képp ku bëgg a dugg tamit création vidéo ma jël la di waxtaan suñu biir may ziarat euh, groupe Ndongo no yëpp rawat nak wa VIP Mame Sa family di ziaré mam Cheikh nya di ko ziar bu baax a baax baax di jallawat encore une fois El Hadj janar rak ci waajuram mu góor bo nga xam ne tamit macha allah dafa genn aduna di ziare nga sek di bëggee bu baax baax soxna Aram fay soxna Nabu ñu ngi lay ziar borom Espagne di ziar bu baax baax membre bi ñëpp dal ak tamit les téléspectateurs di bëgg Ndongo TV ñëpp dal ku ci mel chaîne rek lay seetaan ak tamit ñëpp daal parce que macha allah ñi ngay seetaan bëri na di leen bëgg bu baax a baax a baax di wax ne tamit yéen ñi nekk ci online bi nii nekk ci direct bi nii ku bëgg a wóor tamit mën nga maa def demande vidéo ma jël la ñu jàkkaarloo waxtaan à l'instant sax gars yi laay partagé nii par ndànk-ndànk mais ku dugg rek mën ngaa partagé ku dugg mën ngaa partagé ku dugg mën ngaa partagé ñu waxtaan suñu biir instant bi nañu ci parce que ku ne xam na ni boo duggee si banlieue bi wax dëgg fa yàlla ndox mi ñoo doon ñaan xéewal xéewal ñëw na waaye macha allah ndox mi saawaan na baawaan na may ñaan tamit gox yëpp yi nga xam tamit am na ay taataa wax dëgg fa yàlla tamit euh, yàlla ko yàlla saabara ci lu gaaw te tamit jeunes yi ak tamit suñu maire yi nag waaw nañu jéem a góorgóorlu liggéey parce que wax dëgg fa yàlla affaire yi moom gars yi seetaan nañ dëgg fa yàlla taataa moom tamit assainissement amoon yenn yoon yu dëgër yi am wax dëgg fa yàlla ndox yoonam la xam da kep ko kar ma nga baare ko yoonam bu ñewé rek day déporté dal muy bëgg gaay bu baax a baax baax bo démé ba Kër Mbay Fall nga jàdd à gauche tali bi jëm côté raay ba ta légui sax teer bi baare ko foofu noonu côté Papa jey fa mu nekk ale boobu ri bobu côté rii ñom as bi fofu gis nga ni muy taawe jéggi na dayoo doy war trop da gis nga gaay ba tay canalisation yi përeegul fofu ne mu taawee yeme na nga ñew fu melno tri karo fas mbaw fofu mom ñu jël kubbi wa dafa taa ba xale yi sax ñi ngi tek ay bidon di di dem nga dem fu melni Rimam Jaara ne mu taawee doyna na torop torop torop torop torop torop leer na yalla nga dem Pikine Ginaaw ray nonu feneen ak feneen nonu bari na suñu lim duñ fi joge jamm gën si kam mbaaw bi nonu ba tax na gay dal nañu gëna fagar fagaruwaat bu baaxa baaxa baax vraiment timit suñu mairie jéem liggéey ñu jéem a volontaire jógee parce que li gën ko gën ko gis depuis 2005 waaw te je pense que nag yaakaar naa Sénégal moom warul toll foo am si day arrière daal di gën a dellu ginnaaw loolu moom bëgguñu ko te ndox yi macha allah dem na ba sax empêché ñu léegi daanaka boo xëyee di liggéey sax fi nga doon fay 500 1000 francs nga fay fay ndax oto yi tamit wax dëgg fa yàlla fi ñu doon mën a egg léegi ñu faa egg waaw kéemtaan trop doy na waa trop mais daal yal na yàlla def jàmm bu baax a baax baax yàlla def xéewal waaw tamit ñi am tamit wax dëgg yàlla seen ay kër lañ nekkoon affaire ndox mi ñëw nangu kër gi dugg fa yàqal leen tamit ñu ne di masawu baax a baax di masawu ñepp daal non la ko raison yi defé ci yees ak fu ne gis nañ affaire yi moy lolu di bëgg gaay yi baax baax surtout nak les téléspectateurs di bëgg nomu TV international may bëgg nak bu baaxa baax maam Cheikh nya di bëgg taala ñang Pa Abdou tiat ma lay bëgg di bëgg toute la famille Ndongo Lo non la kay waxe Sidi fay lami nak charlo Pend ñëpp waa Louga yi mën nañu bëgg bu baaxa baax di wax tamit ni maam Cheikh nya nak ngeen xaarandi ko bu baaxa baax parce que mi ngi génnee lu bees mi ngi génnee lu bees muy magal ki ñu wajal magal gi nañu dem magali koku ndaysan ben single bu bes bu ñu préparer pour génné xamna képp ku dugg bëgg na wu tv international sax di nga gis est kii extrait exclusivité vidéo lu gàtt lu am si ci la koy publicité nonu nga xamné extrait bu gàtt la ngeen xaarandi ko nak son boobu génnagul mais su mo ma sha allah moy lool ku su melna gabi to gabi sama xarit borom yëmbal eti ma lay bëgg xamna naa timit ma sha allah ndox mom na fa mel war gabi ma lay bëgg bu baax baay tamit borom baax nga parce que bima la envoyer extrait vidéo bi lir nga ko nga ne ma bëgg ndongo man la naam nga ne ma jour bu audio bi génnee son bi génnee mp3 bi su génnee son bi muy son maam sa bobu di magal gi su génnee rek envoy ya, mako parce que yow yaay borom Dakar FM sha allah dina la ko yónnee affaire bi jallu fofu wa bu bu demee màggal bi ñëw rek bu laaje sax ay émission nga xalé ko fofu Dakar FM wa di la bëggee bu baax baax yow tamit sha allah vraiment ku gëm maam sa nga dal tamit dang nga koy bëggee bu baax baax baax waaw di ñaanal dal jàmm yalla suñu borom def ko ci rew mi fepp dal diko ñaanal wa aduna ak ñëpp may massaw wat encore une fois tamit El Hadji Cheikh Diagne Naar di ko jaalee rek si waajuram bu góor boobu di ko jaale waa Mauritanie sama xarit Zil di rak Cheikh Diagne Naar di ko jaale ñëpp daal soxna na boobu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di wax aduna mom non la demal ma ngi ñew la demal ma ngi ñëw la demal ma ngi ñëw la di bëgg ñëpp nak di bëgg ñëpp di bëgg ñëpp bu baax baax ba xamna ñu rek tegal leen ben son doomu lu tamit gaay yi képp ko am si euh, yaa ngi préparer pour dugg tamit nga ñëw intégré wu dugg woote ñu jàkkaarloo def live en bu nee ba si kanam tuuti nag day ñëw dugg si deuxième partie bi dañoo dugg si deuxième partie bi liggéey gars yi baax a baax gaay ku dugg na nga partager pour affaire yi neex kep ko simit tamit nga pour woo mi nga woo ma dem jëli ji gaay yi ndànk-ndànk ma dem jëli ji gaay yi ndànk-ndànk ma dem jëli ji gaay yi ndànk-ndànk ma dem jëli ji gaay yi ndànk-ndànk vraiment nak seen émission noonu la ba faaw sax dimanche lay faral di am tane dañu xaw tardé tuuti ma ngi ci jégalu gaay yi di bëgg ñëpp daal di wax ne après nak rediffusion ma mën nga ko amaat ci chaîne télévision Bëgg nongo TV international la chaîne télévision autrement do Ndongo Lo après mu ngeen amaat fofu Let me solve. Think it's waaw ndeysaan grand laay boo ñëwee njël la boo ñëwaatee njël la incha allah Gana Caar yaayu Kumba Caar mbokk mi Alaaji Ndongolo baayu Adi Maam Yendo

wa ziar ziar ziar estan écoute a ah, Grand lay Ananas mais Grand lay, man nga dug ci live bi ñëwal ci bir live man nga dug ci bir live ne ñi ngi xaarandi gars rek bu ñëwee jël leen partagé leen nag gars yi partagé partagé partagé partagé partagé partagé partagé partagé partagé ba sa biir pare ba Dramé Mansour Dramé di waa woon bëgg noo waaw Mansour ñu ne ziar Mansour Dramé partagé mën ngaa woote ma jël la de Mansour Dramé Mansour partagé rek saparapi Chama aí para mais sair Seis anos Chama aí para mais sair Quando me já chegou Hasta para la malapa Para la mala se pirga

sama gars yi partagé rek partagé seli seli waaw waaw bala may sala ndenge sek bala may sala bala may sala Kimber Begitu Kita sudah syukur kamu berapa gigin hari Patas tas kul tahu berapa gigin hari Patas kis kis kis partagé rek partagé partagé partagé partagé partagé partagé partagé ba ca biir pare ba Ya, Tetek tetek rembah gigin ha. Kayak parra zerek. Oh, wow. Lesan El Haji Silla. Ini ibege. Eh. El Haji Silla. Sama waina El Haji Silla. ko waaw waaw gars yi rek mu ne tamit ndeysaan yéen a ngi seen émission Ndongo Lo ba faw à l'instant ni nag dañuy ñëw rek dugg ci deuxième partie bi mais deuxième partie bi nag incha allah ñu leen di xaarandi ku bëgg woote rek mën ngaa woote. légui nak bu joggé fi dañuy ñëw rek dugg ci deuxième partie bi deuxième partie bi nak fa lañuy jéxé jeexale suñu émission di seen émission ndongolo ba faw ñu leen di bëggee bu baax a baax a baax di masuwaat rek vraiment tamit tata ndox yi fi am ñu ci maso bu baax a baax a baax di wax tamit ni lépp yàlla suñu borom la borom baax a baax baax ay bay jaay naar ma lay bëggé di bëggé mbokk téléspectateurs yi nekk ci online bi di wax tamit ku dugg na partager ku bëgg tamit woote bokk émission ñu jàkkaarloo live en direct demande ma d'intégration vidéo ma jël la ñu jàkkaarloo après seen émission Ndongo Lo ba faw dañ koy reprendre diviser ko ci chain YouTube boobu di bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo ma ngi bëggee gars yi bu baax a baax a baax di bëggoon gars yi bu baax a baax di wax nag à l'instant nag bu ñu jógee fii nag ci son ñeeño yi day ñëw rek xool leen beneen son après dugg nag suñu deuxième partie wu émission di xaarandi gars yi ci woote bi ku ñëw rek jël la jaajëf ma ban fan la jëm sax ya. Pikine la jëm wala fan waaw ndeysaan xaaral ma dugg Pikine bul bëggati dëkk ba dëkk fa bul bëggati dëkk ba dëkk fa bul bëggati dëkk ba dem fa bul dëkk bu bëggee demal toog ñu dem pigin di wax tamit ndeysaan maa ngi fàttali gars bu baax a baax Alassane nag dugg nañ suñu deuxième partie wu émission xam naa nag foofu la ñuy jeexalee waaw parce que ñu ngi ci deuxième partie bi deuxième partie bi nag ñi ngi xaarandi gars yi ku bëgg oote na oote soo duggee ñu jël la ñu waxtaanee ko di wax tamit ni yéen a ngi seen émission Ndongo Lo ba faw di nuyu ñëpp di ziare ñëpp ku ci mel ne Assane Ousseynou Seexu yàlla bi waa groupe jàmm ñëpp di wax ni gars yi kon ñu dem. Dramé nga ni may ma son sëy bi ah sëy bi son sëy bi son sëy loolu dara xaaral may la ko son sëy bi nga bëgg xaaral may la ko xaaral may la ko xaaral may la ko Mansour Dramé من شدراني من شدراني من شدراني حرمينكو حرمينكو حرمينكو للدرا للدرا حرمينكو جلال من شدراني waaw mën su Dramé nag moo bind message ni mu ne naa ko may son sëy bi waa jëlal jëlal yow laa ko may Mansour Dramé jëlal jëlal jëlal salaamaaleykum ba tey mën ngaa ñëwaat boo wootee rek ñu jël la boo wootee ñu jël la partagé leen partagé leen partagé leen ba ca biir pare bi waaw wootee ñu jël la man su daraamee ndeysaan ku duguna na batay yeñu nak ci online bi kep ku paré pour woote tamit wotel denté nga rew ma jël la ñu jakarlo waxtan suñu bir vraiment tamit ku duggu tamit émission bi sa émission la ku duggu rek partager wa mbir yi yaatu vraiment mu len ci wax lolu bu baaxa baaxa baax wax tamit ni seen émission Ndongo Lo ba faw bu paré nak ma ngeen ko am ci YouTube bi di bëgg Ndongo TV international ma ngeen ko amat fofu ku duggu fofu rek mën nga ko amat fofu vraiment mën nga seetaanal lépp foofu waaw daa mel ne am na kuy oote waaw soo ñëwee ñu jël la soo ñëwee ñu jël la mbokk mi waaw ku woote rek ñu jël la vraiment ñu jàkkaarloo waxtaan parce que émission bi seen émission la waaw suñu émission la mooy loolu à l'instant nag ñu ngi suñu cëppaandoo émission ñu ngi ci deuxième partie bi ñu ngi ci deuxième partie bi ñu ngi ci deuxième partie bi ñu ngi ci deuxième partie bi xanaa xaarandi gars yi quelque temps rek pour ñuy woote bëgg a jox seen ay contribution waaw vraiment tamit bu ñu ñëwee rek ñu jël leen waaw daa mel ne Sidi lay seen noonu Sidi Diagne ma lay bëggee di wax ni gaa yi tamit ku dugg rek partagé ku dugg séddale séddal séddale séddoo séddale séddoo ku dugg rek partagé ku dugg rek partagé ku dugg partagé ku dugg partagé Umar Umar Keita waaw mën nga woote boo woote rek ñu jël la Umar waaw ku dugg rek partagé. ndeysaan soo sëriñ Moustapha Mbacke Thiat mu sëriñ Abo ndeysaan ñu ànd déglu mais gars yi ko dugg partagel ku bëgg joxe sa contribution si émission bi mën nga oote bu ma defee demande rek ma jël la kon les ko ndongo loo fa live ñu ngi chargé wu sëriñ Issa Mbacké Brésil ba tey Cheikh Modou Kounta Grand Mbao nga ñëwaat ba ñëwee njënd sëriñ Issa ndeysaan mel na xaarim seen mi ngi woote mais teel noonu rek mi ngi chargé wu xaarim seen mi ngi chargé wu teel noonu rek nga egg ma jël la xaarim seen borom Touba teel noonu rek mi ngi chargé boo egg seen jël la mi ngi chargé teel noonu ndeysaan mi ngi nekk en cours mi ngi nekk en cours en cours en cours su ñëwee jël la moom xaarim Hotel misal misal ko ndaw nak xanaa boo woote waa rek del rek fekk xaalis rek tel noonu ñu chargé wu ñu jël la jël benn xaalis seen ay ci biir benn xaalis seen ko

boo ñëwee rek boo ñëwee rek ma jël la xarit bi mi ngi chargé wu mi ngi chargé wu boo ñëwee rek mu jël mi ngi son rek. waa xarim saadiya adana Thank you. waaw ndeysaan ah, ndeysaan ne daa mel nañu su ñu suñ cappaandaw émission parce que deux sons mooy ndese deux sons Alassane ah, ni deux sons mooy ndese bu ñu dugalaatee deux sons rek mooy suñu cappaandaw émission seen émission Ndongo Lo ba faaw xam naa ma ñu xool ci beneen son nag ma ñu xool ci beneen son ma ñu xool ci beneen son ma ñu xool ci beneen son ndeysaan di bëgg gars yi bu baax a baax a baax a baax di bëgg gars peut être ku bëgg a woote mën ngaa woote ñu jël na farwaay ni yéero dëggal loolu yée jam farima nga sunu réew la masa nekk ndongolo ba waalo réew la woon waaw waaw waaw gis nga waalo réew la woon taal seen bopp bee ba jeexoo ngir ngoon taw musuñoo des ku ñaaw looloo waral ndox maa ngay wala ngaan mar naan marul naan lii waaw waaw waaw yoroo waalo doy na fi musuñoo daw musuñoo des gënam ma yaay kay delaw nga ni faal mi yaan na faale waaw yaay kay na ma faal yaay yaay jay na ma faat musulooni su ma doon góor ma loom lu dul ñàkk jariñoo ma naan daan sa doole wowoo sëy na ba sama yaay waaw waaw mu ni ko bul sonn yaa ngi en sur la chaîne télévision bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo chargé de mission dëggal waaw team team journaliste ñun waa ñëwal ñun dëgg la waa ñun yaa ngi woote soo ñëwee ñu jël la. nit teewal ñu wax la lu rëy.

wàccu suul yàlla wàcce la napp sa moo tax mënuma dugg waa dëgg la amul problème incha allah waaw jaajëf cuun Yacine Sagour waaw jaajëf kon restez connecté sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo tey nag ñuy def live en Facebook bi di synchroniser ak chaîne YouTube bi di Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo di ñëw nag si seen émission Ndongo ba faw à l'instant nii nag maa ngi xaarandi gars yi ko oote ñu jël la di wax tamit ni ñu ngi suñu émission à l'instant nii son bi la ñuy teg bu ñu paree teg deuxième son bi nag jeexal suñu émission joxante tàggatoo dig daje ba beneen dimanche mais diggante bi ku ñëw rek boo boo wootee ñu jël la ci woon daa ne mi ngi woote d'intégration vidéo waaw ba bu ko ragal waxtaan. waxtaan situation dëkk bi waxtaan actualité vraiment boo ñëwee ñu jël la moom su live mu nii wax dëgg fa yàlla wax lu ñu wax lu ñaaw lu ñu wax lu ñu xamul ay ndongolo lañu teg bége fàttaliku ndongoloom sëñ Fallou mooy concept émission bi émission ndongolo ba faw saafante gars yi waaw pare nag télévision bi bi war gars yi baax waaw mais Thioune la accident la mais bàyyi mu chargé après ma jël ma dugg jox say contribution xam naa day chargé xam ok kon ku ñëw rek ñu jël la ku ñëw rek la. déglu ndongo lu mooy fii nee ñaar doom aadama mo am borom plan ak borom Pastef borom plan su ñëwee su amé day toog waaye nak borom Pastef du daw du daay déglu leen lii. su amoon day dem borom Pastef du daw sey sëy du nga mel ba borom Pastef du doy sey sëy du nga mel. ñëwee su amee dafay toog borom balance su ñëwee su amul day daw borom ba siis du ndaw du daay am laay ba see ba sey yow la ci dur ba online bi Muhammad, borom Marokiya wa bu ñu ma jëlee Muhammad bu ñu ma jël la pimpi bu ñu ma jël la sha allah Mouhamed waaw Mouhamed mu ngi charger wa mu ngi charger chargé mu ngi chargé chargé charger chargé su ñëwee ñu jël

Baba Fall borom asalaam. lii ma doon ay du yàlla bind na yow ki ngay doon. loolu leer na. ka ngay doon rek soo koy doonee. ba yàlla kun la maa doon. maa bëgg li ma doon. Touba boo ñëwee ma jël la Pape Touba accepté naa la bàyyil mu chargé wu da nga déplacé fu nga nekk tuuti rek déplacé wu tuuti rek déplacé wu tuuti Pape Touba Ndiaye sant bu bax baax alhamdulilah. waaw fii moom tane na tuuti nag man kay waa Dakar laay laay xam nii ndox mi daal bari na bari na lool sax non maa ngi côté maa lay ziar maa lay ziar bu a baax delloo ziar bu baax ak nuyu yëpp nuyu ñëpp képp kuy bàyyi xel émission bi ndeysaan dëgg la dëgg maa ngi lay nuyu bu baax di ñan ndeysaan mais noo gise kii bi comment dire euh, tubaab Jalaaw naka la maa taw bi bëri rek. waaw taw bi fii bari na nag bari na mais daanaka yàqu fi daal yàqu fi par rapport ak damay dégg ne biir Dakar. waaw mooy tane Dakar dëgg la. Euh, mooy tane Dakar. tey eh, noo gisee émission bi nag émission noo gisee. mi ngi neex yaa ngi koy teg ci temps. yaa ngi tax gars yi daal fàtte fàttewul sa suñu waaj suñu waaj yi laay fii. ndeysaan ndeysaan. macha allah gars yi daal. tey boo amoon boo amoon tey loo amoon loo ñu dolli. ma ne tey boo amoon loo ñuy ñaax di ñu dolli pour ñu taxawee ko wala ñu doxee wala ñu kii ko loo tey. dégg déggatuma la mais tey boo ma noo ñu dolli quoi pour ñu yokk ci émission bi waa xam naa dafa xaw a rëcc cuur mu ni histoire historique sont ak les situations dans laquelle Ndongo Lo chanté ko ko ko ko engeller. Alassane na ñu ngi suñu cëppaandawu émission ñu ngi suñu cëppaandawu amal jàmm bu baax a baax amal jàmm bu baax a baax baax a baax amal jàmm bu baax a baax yow Papa Touba Ndiaye da wax yow moom waaw dund rek. i <laughs> Amen.

Let us buy man. ko déggee nii rek macha allah xam fi ni ñew timi tagato ak yeen tagato ak yeen tagato ak yeen tagato ak yeen di déggawaat wat gaay bu baax baax baax di wax timi ti di ko lancer appel rek monde bek adde bek fep ni sama dernier message moy wax tamit ni état au Sénégal vraiment na bayyi xel bu baax baax keur Mbay Fall juma ja bo jëmee risque avant nga ag station Grand Mbao à gauche tribu dugg noonu ci arrêt jumaa ji fi ñu dugg noonu vraiment dafa fees dell ak ndox waaw ci jël ay mesures bu baax a baax a baax foofu la papa nekk te dugg noonu na ak ndox trop te suñu maire yi liggéeyu liggéeyuñ tus mbaaw kazalik boo ñëwee Fass mbaaw tëli karo dafa fees dell ak ndox nga dem Fass mbaaw rimaam jaara dafa fees dell ak ndox nañ ci def yi matukaay yi parce que mbir yi yéeme na trop yéeme na trop yéeme na trop yéeme na trop dañ jël ay matukaay di ñaanal ñëpp jàmm wax ni maam Cheikh Niang le petit frère de Ndongo Lo incha allah am na lu bees lu muy génnee gi di wax ne naka ñëpp xaar bu génnee rek gars yi mën am enjoy ko Raja yi di ko teg ñëpp di ko bëggee vraiment na ko ñëpp xaar na ko ñëpp xaar na ko ñëpp xaar na ko le petit frère de Ndongo Lo nekk suñu waykat nek la chanteur autrement nga xamni ni mo fi nek nek chanteur de pikin, nga xamni machallah wa pikin nak pikin ci Pikine ñep ñi ngi ci ginaaw ñi ngi koy baye xel wa pikin pikin bu koy wax Lo moo def na Lo fi le petit frère de mu fi di mam Cheikh nya macha allah macha allah chanteur de Pikine. waa Pikine sentir ko ren nag mu indi benn son bu am si son bi mu naax ni yóbbul malgré muy nañu dem màggali macha allah son boobu am na solo te li ma si jot a déglu vraiment neex na xam naa bu ngeen dugg sax si bëgg ndongo TV a Moussa di ngeen am tuuti extrait pour déglu ko ci am na solo trop trop macha allah na di wax ne loolu lu bees la nag lu war a génn na ko ñëpp xaar na ko ñëpp xaar na ko ñëpp xaar na ko ñëpp xaar na ko ñëpp xaar di bëgg gaa yi mais gaa yi xaar ma dem ñëw moom jox leen son bi rek dem ñëw. nag ñu jeexal suñu émission parce que instant bi ñu ngi suñu cëppandoo émission di wax ni vive Pikine vive Ndongo Lo vive Mame Cheikh Niang chanteur autrement de tous les temps le chanteur de banlieue jaajëf suñu maire nag suñu maire nañu góorgóorlu waay parce que pour l'instant nii seen mandat jeex na bu yàgg ñu leen waroon wàccee ndox maa ngi nii jëm ñu ci dara lii kenn tànn quoi jaajëf kon gars yi ma jox leen soo mi ne dem ñëw nag ñu finir ñu jaax suñu moom gars yi ñu suñ ci panneau émission nag ñu suñ ci Issa laa day woote Issa xaar ma jël la instant yaa ngi woon ci panneau émission bi xaar la. ku bayul ma bay ci dool sang bee gar ma ñaan waa Issa exil ma jël la da ngaa dugg ci émission bi. wa Isa boo ñëwee ñu jël la Isa boo essayé ñu jël la a dugg na ci live bi ñu ngi lay xaar instant yii ñu ngi suñu Salai, y instant nag xam naa fi lañu ñëw jeexale rek xam naa fi lañu ñëw jeexale ma joxe sama dernier mot rek fi lañu ñëw jeexale fi lañu ñëw jeexale xam naa incha allah ba beneen dimanche rek ba beneen dimanche ñëw di defal leen beneen laay fan direct ma ngi ziar bu baax a baax tamit ñu fi jot a jaar ku mel ne Papa Touba Ndiaye jaar na fi ma koy ziar baax a baax a baax a baax di ko bëggee bu baax a baax a baax lu wax ne xam naa kon dox daje rek ba beneen dimanche incha allah ci seen émission Ndongo Lo ba faw di jaajëfal ñëpp bu baax baax baax a baax di bëgg ñëpp nag waaw xam naa incha allah ba beneen dimanche rek incha allah waaw sama copain daa mel ne daa bëgg a dugg waaw ñu man boo ñëwee njël la jeexal boo ñëwee njël la boo ko jeexal beneen boo egsee Yeah, Pasaki. boo essayé ma jël la boo essayé ma jël la maa ne xaaral mi xam naa Let's go. Wow, ndeysaan kon lu neex du doy dañ koy dag ba yoon inshallah allah beneen yoon rek ñëw macha allah mu gën moom moo ñëwoon rek seen xarit seen copain seen doomu nday defal leen seen émission Ndongo Lo ba faaw xam naa incha allah rediffusion bi man ngeen ko amaat ci chaîne YouTube boobu di chaîne télévision autrement de Ndongo Lo di bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement chaîne télévision bi jiitu bi raw bi nekk ci kaw a kaw a kaw a kaw ci kanam chargé de dëggal jubal leeral la chaîne télévision projecteur la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo di bëgg gars yi baax a baax a baax di wax tamit dox daje incha ba beneen dimanche ci seen émission Ndongo Lo ba faaw di nuyu nag ñëpp sama mbokk njàmbur njàmbur waa Louga waa Saxaaf waa Njaboro yi ñëpp daal bëgg ñëpp di wax tamit ndox mi ndeysaan macha allah bari dëkk bi yàlla na fi gaaw jóge nag nu mu a gaawee gars yi man ko ko jaar la fi yoon bi mu war a jaar mu dox dem yoonam jaar yi daal di tali karo macha allah ndox ma bëri na fa Fass Mbao fii Maam Jaara ku ne gis na ndox ma bëri na fa Kër Mbay Fall tali bi jëm à cause noonu jëm ko raay ba bëri ndox trop mu ngi ci arrêt jumaa ji ñu ngi bëgg gaay baax a baax a baax di wax ci vive Ndongo Lo mu Serigne Fallou Mbacké vive Maam Cheikh Niang di bëgg gaay baax a baax di wax seen mbokk seen xarit bëgg ndongo la woon kon gars yi caaw caaw bàyyi baay ba beneen dimaas incha allah di leen bu baax a baax a baax kon gars caaw caaw.